برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي فلم أجد غير خير الخلق لي سندي ويسرن أموري إنني وجل وعاجز وذليل أنت معتمدي وشد فقري ولا آوي إلى أحد إني أخو ثقة أن تأخذوا بيدي لولاك لم يقع التكوين ما خلقت شمس ولا قمر إليك مستندي فاجعل محبته عيشي ونصرته سعي ومعناه مصداقا لمعتقدي وأبدلن نحاسي يا كريم به درا وروح بذكراه على كبدي أئمة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطي فيه بنظرة تأتي لنا بالظفر عن مدد أخرى الحضرات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنو درس نتالتي قصيدة عنوان الحكم نجي يمتي في أبو الفتح دي وخني من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفه شر من عز ومن هانه doo dëgg mu ne man yettaqillaaha ku ragal yàlla yuxmad fi awaaqibihi yuxmad def na sant ko fi awaaqibihi ci mujjam li mu bëgg a wax rek mooy mujj rafet nit mënu koo am lu ne dafa war waruwaay bi ñuy wax ragal yàlla wax nañ ci lu bëri yoon Mawlana Cheikh Ibrahim wax na ci jàngaleem ne yàlla saa yu waxee ragal leen yàlla firi bi ci gën a gàtt mooy def ndigal yi bàyyi tere yi ni yàlla bëggee du yow ni nga bëggee loolu ku ci nekk nekk soppe yàlla ku nekk soppe yàlla yàlla méngoo say mbir ku yàlla méngoo say mbir pertatoo dara mm, mm. ku bëgg a nekk ci ku bëgg bokk ci xarit yàlla yi war ngaa góorgóorlu ba yàlla du la gis foo xamante ne bëggu la fa gis waaye war ngaa góorgóorlu ba yàlla fi mu la bëgg a gis tamit heure bu nekk mu la fay gis kon ragal yàlla comme ni ko bàyyi di waxee mooy mbooti mbooti jaar nañ ci lu bari heure bu nekk darsu yu utee façon waxin yu utee lépp rek benn jubluwaay la benn junjuwaay la mooy jàmm bi nekkal yàlla dëgg kenn ci sufiyanke yi dafa ñëw ci sëriñam ne ko dama bëgg nga dénk ma mu ne ko maa ngi lay dénk li yàlla dénkaane wa laqad wassayna alladina utul kitaaba min qablikum wa iyaakum an li ma lay dénk daal mooy li yàlla dénkoon ñi ñu jiitu ñun ñëpp dénkuñu ko ñun ñi moy ñi ragal yàlla def ndigal yi bàyyi tere ñëw na ci hadith mune bés penci yàlla dafay oo jaami ne ayuha annaasu inni wadaatu lii nasaban walakum nasaban fa wadaatum nasabi wa rafaatum nasabakum qultu inna akramakum inda allahi atqaakum fa qultum inna ak ان أك ان اكرم الناس عندكم اغناكم امنا بين الروايه ابو خدلول فاليوم اضع نسبي اضع نسبكم وارفع نسبي اين المتقون اليوم اظلهم في تحت ظلي من هذا ما علينا دفال اسكان دفال سما بوب اسكن نه كي غنتيين موي كو غنا راغال يالا يين غن روتال سما اسكان ايغال سين اسكن نه كو غنتيين موي كو اوبو علال تاي نك موم kenn mënu fee atte ku man man maay atte te mooy atte fépp hmm. waaye fee dafa mayut kenn buntu ci atte lépp nguuram la moo fay doxal lu ko neex waaye fee rawatina mu ne tey nag sama askan laay yëkkati ana ñu ragal yàlla ñi tey maa leen keral ba soob ku ragalul yàlla perte na yàlla may ragal yàlla ragal yàlla boobu nag ku bëgg a mucc il faut nga ngoy ci ci nim tàmbalee ني واخ اسم يقي به الانسان نفسه اسم يقي به الانسان نفسه ما يضرها في الاخره ترمير لا مو خامتني تي لي نيت كي دي جار غير فغال بوهم لوكاي لور الاخره فري بري سيدنا علي دي واني التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل من رجل يلا دابن كو خي ما رجل يلا تي بوهم كو رجل دو ديف لوم بان جيفه القران loo am lu mu tuuti tuuti nga gërëm ko ndax koom daal dëgg-dëgg mooy doylu te heure bu nekk yaa ngi préparé jugee ci àddina ñoo ne ci xadisul xudsi mu ne war ngaa liggéey ba mel ni amal li duniyaaka ka annaka taishu abadan faggul looy dundee looy dundalee sa njaboot ba mel ni yow da nga fee nar a beel waaye jëfeel euh, jëfalal sa alaxira wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gadan mel ni sax suba nga dee kon jaam war naa am équilibre ba nga xam ne mi ngi jëfal àddinaam te jëfal àddina boobu fàttaloowu ko jëfal alaxiram waaye teraanga daal doomi aadama bu ko bëgg ci kaw suuf il mu ragal yàlla subhanahu wa bi taqwal ilahi نجا من نجا وفاز وصار إلى ما رجا ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا ceragal yàlla ña mucc ca lañ ca lañ muccee ña texee ca lañ texee ñi am seen bëgg-bëgg ci lañ jaar ba am ko te yàlla wax na ci alquran ne wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan yonent bi wax na ci xadis ne ku ku bëgg yàlla bëgg la na nga ragal yàlla ndax yàlla moo wax ne inna allaha yuhibbul muttaqin yàlla bëgg na ñu ragal yàlla boo koy topp du jeex waaye ci tënk daal mooy ne comme ni ko baay waxee mataalib yëpp bëgg-bëgg li doomi aadama di sàkku ci àddina ci àllaaxira lépp mi ngi aju ci ragal yàlla bu ko jaam bi amee yàlla may ko ko muy xam muy xam muy mucc mucc say noon mucc ci àddina mucc ci àllaaxira loolu lépp mi ngi tënku ci ragal yàlla bu ko jaam amee rek am ko te dëgg-dëgg ragal yàlla mooy ittewoo yàlla moy yegg ci xam yàlla mo lay bay di wax ne qad alimtum bi anna allaha qad alimta bi anna allaha jaala al ishtigaala bi ghayrihi khawdan wa laiban yàlla dafa konte ne ittewoo keneen ku dul xaan la ki fokh rek ay xoos ci mbosor te jaam bi warta mbosor motax mu nan alayka billahi fala tashtagili bima siwaahu inna da taqwa alwali mu ne daal bu ñu waxee ragal yàlla daal mooy ittewoo yàlla te ittewoo leneen lu dul moom mooy dëgg-dëgg loolu mooy ragal yàlla mooy dëgg-dëgg xam yàlla moo tax woykat bi waxoon ne man arafa allaha wa lam tugnihi maarifatu llahi fa daaka lchaqi maa yasnau alabdu bi izzi alghina walizzu kullu lizzi lilmuttaqi ku xam yàlla te xam yàlla boobu dayu ko ko daal mooy ko texee di fo looy utee teranga تترهنغ لبي الله كم تترهنغ أدفع الله لا تطلب العزة لدى الخلق بلا تعزز عند المليك لا ولا ويساكو ترهنغ ننكو ننكو ساكو تي الله ndax al izzatu jami'an moom mboolem tedd nga yàllaa ko am ku nga ku yàlla may nga am kum xañ nga ñàkk yàlla nañu yàlla may te may ñu ragal yàlla te mooy def ndigal yi bàyyi tere yi teet mboolem bàkkaar yu ndaw yeeg yu mag yi yëpp xali dunuba sagiraha وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى بكاري وما جاي يقول ده مناسخ ملان لكوي دختي دربو خمنتن اللب أي أي أي أي دجلة نكوي وتن دكو نون غي متن دكو بكاري وما جاي يقول ده وبعدين غي يجي شرعة ليالا متهمونه mi ngi junj ci wax ji rek man ittaqillaha yuhmad fi awaqibihi mooy da nga am mujj gu rafet ndax wal aqibatu lil muttaqin moom la bàyyi waxoon ci xasida talamidata cheikh tijani fasbiru ala kaydi aadain mala dahri tunsaru boo demee ci biir da nga dégg mi ngi naan wa aqibatun mahmudatun la yuniluha siwa amali taqwa xafu llaha wasbiru mu ne mujj gu rafet dara mënu ko maye lu dul jëf ragal yàlla kon nag ragal leen yàlla te ngeen muñ muñ ba def ndigal yi muñ ba bàyyi tere yi muñ jafe-jafe yi nga xamante ne dafay feeñ ci dund doomi aadama bi man ittaqillaha yuhmad fi awaqibihi wa yakfihi charra man azzu wa man haanu ku ragal yàlla dana ci jëlee lan yàlla fegal ko xay ñi nga xam ne tedd nañ ba mun a ba jàpp ne mun nañoo lor nit waaye ñi nga xamante ne tamit doye dinañ ba nit ñi jàpp ne munuñoo lor te mun nañoo lor nit tamit yàlla dana la ko fegal in tasbiru wa tattaqu laa yadirkum kayduhum shay'an ku muñ ragal yàlla luñ la munti pexeel it pexeel yooyu du la dal ndax yàlla ay niti boppam moom moo leen di aaral boppam moom moo leen di aaral boppam mu moo tax yëg wa yëg fii charra man azzu ko ragal yàlla néew na fu ko doomi aadama mën a lore wa man haanu moo tax kenn ci magi Mauritanie yi dafay am benn xasida bu rafet ci ñaan yàlla sawdi al xaafid al mustawda al walidini wa sirri wa awlaadi wa amwaali xam naa sakare bu mag la de boo demee ci biir mu naan maa dalla maa dalla man billahi azza wa kam dalla al azizu bi amaamin wa axwaali wa kam wajadna dalilan baada izzatihi man izzuhu bil mawaali am bil amwaali mata tafus bi muwalaati al ilahi yadi fa aadi ya ayuha al maxluqu awaali mu ne du torox mukk koo xam ne ci yàlla la teddee mu ne te bari na buñ ñu fa gisee nit koo xamante ne moo fi ëpp ni jaay ëpp fi ay bàyyi tax te torox na gis nañ fi ku torox gannaaw bi nga xamee ne am na teranga àddina gis nañ fi ku torox te fekk ne li ko texeeloon mooy alal yu bari li ko texeeloon mooy ay mbaayalal yu bari am ay liggéeykat yu bari yu ko wër mu ëlbati ku torox waaye mu ne bu ma demee ba am tof ndimbal bu jugee ci yàlla yow mindeef bi bu neexee nga noonoo ma munoo maa lor bu la neexee nga méngoo ma te munatoo maa jëriñ kon yeg fii man azzu man haanu mu man istaana bi gayri illahi fi talabin fa inna nasirahu ajzun wa man istaana bi gayri illahi fi talabin képp koo xamante ni sakko sàkkoo dimbalikoo keneen ku dul yàlla ci benn càkkuteef li koy dimbale ci càkkuteef boobu Moy Lotu ak gàcca i ku dimbaliko Yalla yàlla am dimbal waaye ku dimbaliko ku am ndigal fa yàlla tamit am dimbal borom ndigal yi kuñ may nga am ala kulli xaal kuy dimbaliko na nga dimbaliko Yalla. yàlla Nabi bi sallallahu alayhi wasallam sallam wax na abbas ci hadith. Hadith bu gudd ihfadillah yahfazuk ba mu jeex waxna ko ci biir ne wa ida sa'alta fas'alillah boy laaj laajal yalla wa ida sta'anta fasta'in billah دمبلكو dimbaliko dimbaliko نمشي لم تشرك واعلم بان الخلق لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك. منك ادنا لب دجلو نك بين سي. ngir may lu la yàlla may du addina yëpp buñ dajaloo woon it lor la te yàlla namu ko ci yow du sotti daal ala kulli xaal lu tàbbi ci kawam rek mooy namu namu yàlla kon man istaana bi gayri llahi fi talabin fa inna nasirahu wa xidlaanu mbir moo munti nekk bu ci yàlla dimbalewut du sotti ida kaana ida kaana lil mar'i nasiran تهيا له من كل صعب مراده وإن لم يكن عون من الله للفتاة فأكبر ما يجني عليه اجتنابه من إذا إذا كان عون الله للمرأة ناصرا مير مو دوغو ندمبل يا الله فك لاج لب لو يامب دا يامب وإن لم يكن عون من الله للفتاة فأكثر ما يجني عليه اجتهاده bu dee nag ndimbal yàlla ànd ak yow ci mbir da ngay sonn rek waaye mbir moom du sotti ñaata nit lañ fi gis ni jéem a forcé bëgg dara forcé forcé forcé barek rek adduna moom jéem la sant jéem la tudd sant ba loo fi jéem jéem jéem jéem dana am loo xamante ne danga ko fa bàyyi booy dem sotteegul ida lam yuinka allahu fi ma turiduhu fa laysa li maxluqin alayhi sabilu lu la yàlla dimbalewul ci looy sàkku te yàlla dimbalewu la ci mindeef amu ci yoon te ku yàlla jubalu tamit du jub ku yàlla xamalut du xam ku yàlla mayut du may du am waaye yàlla bu la mayee wala mu pare laa xamal dof bi bu rombee sax day wax benn wax bu ñàkk da nga déggee ci xam-xam yu bari boobaa asbaab yi yëpp dañuy taxaw sa kanam loo ci jaar rek mu yomb waaye bari na luñ fi jàpp lo xamantene ñi jàpp ne sabab lu moo koy maye nit sabablu na ko ba sonn amu fekk na namu namu yàlla yeggu ci ku jàpp ci mindeef yeb tamit jàpp na mu nañ la amal dara tamit mu nañ la amal dara abdullah sayyid moy wax ne جاء زيد وجاء jaa وجاء خالد والجميع xaalidun waljamiu ثم walaa ولم يفد أي شيء غير شيء شاءه من شاء فإذا لا تقصد سواه لحاج أو توجه لمن سواه رجاء أو تضيع فيما سواه مكانا أو, أو تضيع فيما سواه زمانا أو مكانا أو فرقة أو لقاء من المهم من يتوك زيد نيونا عمرو نيونا خالد نيونا نيوم نيب وان نيو موم لاني نكاك موم لاني مينغو نيوم نيب دم نان كين جيري نيوكو دارا لودو ليغا خمانتين لولا يالا نمو مو نه بو ديمي با خامني مبير مي bul jublu keneen ku yàlla ci ajo bul yaakaar keneen ku yàlla ci ajo bul tàddeel sa heure ci keneen ku dul yàlla bul bàyyi bul bul boole bul yàq sa dara ngir benn nit ndax nit boo yaakaar mën ngaa dem doo ko fekk nga dem nga fekk mu bëgg te nga fekk mu am mën bañ waaye boo amee yàlla loolu du jeex boo amee ku am ndigal ci yàlla it boo demee rek sa mbir yi sotti loolu lañ doon wax démb ci bàyyi maa ataahu min amilin qattu illa wa habaahu fi xiinihi bin nawaali kenn ñëwalu ko am aajo loolu ne jël nga aajo boobu ndigal bi mu am la moo tax mahamadulahi sayid mi mu ne dafa wax bàyyi na ko damaa bëgg a dem commerce gannaaw tarbiya bàyyi na ko bu ragal ñàkk mu ne bés boobu la wax ne dootul laaj nit soxla ta ba tey laajul nit soxla te mbiram yëpp a ngi sotti dajee naag borom ndigal ku dimbali ko ku yàlla pare ci moom da ngay am ndimbal من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان من كان للخير من ناعا فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان ولا إخوان وخلان نما جابوني ولفت البوسي ونيتي جامونهم دانيو نايو نخ دفو بري لومي واخ سي نيني نان نان ديمبالانت ديمبالانت امنا نك نيو باخ ني مسا دنج من من كان للخير من ناعا képp koo xam ne yàlla dala teg yiw sa loxo teg alal sa loxo teg wërsëg sa loxo ba pare nga tere ko nit ñi buggoo kenn jëriñu si ne bu nit ñi buñ la waxee dëgg da xam ne amoo ci xarit amoo ci àndandoor waa ji da doon dem fëgg benn kër xam naa mu daje ku nay rek mu ne ko lekk lay saraxu mu ne ko lekk amu fi ko ndox muna ko ndox amu fi muna ko ay sey loo ma may rek muna ko dara amu fi muna ko génnal ñu andem dem ni ko yo yow gi lëmb dara loo muna may nekk muna ko ko génnal ni ma yow ñoo em xaala xam nga ne kër mo munta a ñàkk maye force amna lo loo maye waa ñaan lu nekk waji amut mu ko génnal ñu dem ni ah day niroo ki duggoon ci kër ga di sàcc dugu wër kër gi yeb gisu dara rek mu dem ba ci borom gi rek eko eh, jugal ba pare di nelaw mën ta nekk yow sa keur gi sax amul luñu mëna a moy ne ku am yiw mën ko bok ak nit ñi ku bax nga waye am yiw téré ko ñëpp nay do bari ay soppé dé mbolo buñ la tuddu mom nay bi faaw mu juk do dem place ñu jugal la fo dem chaise yi fess kën du la may waye ku bax ci nit ñi koog am na qabuul lu waaj waxoon ne inal ganiya ida takallama muxtiyan qaalu asabta wa saddaqu ma qaala mu ne xaalis yegg na ci ci mën a def nit fen sax ñu ne ko wax nga dëgg ndax xaalis ba waaye nit ñi buñ la yaakaaree ci xaalis mayoo leen comme ni nga ko waxee démb tagg yëpp dafay mujj soppeeku nekk ay xas te man kaana lil xayri man naan fa laysa lahu ala alxaqiqati ixwaanun wa axdaanu Euh, euh, borom xam-xam yi nee nañ aswaw axlaaqi rijaali al buxlu wal jubn te góor ñi jikko yi gën a yées ci seen jikko yi mooy nay ak ak tapet yonent bi daan na ci muslu yàlla am na sax xadis yoo xamante ne dañ ko wax ante ne wérut yonent bi nee na ku nay du dug aljana sëriñ bi mooy wax ne mu ne nit bu nayee yàlla def koy xañ sax moom ci boppam yàlla daf koy xañ alal bi doo ci mën a jëriñoo am xaalis kenn ñeewu ci sa yére nii sa lekk kenn ñeewut say mbok amoo ci woy wu rafet ci nit ñi amoo ci ay tiyaaba ci yàlla xaalis jàmbur nga téye rek xamoo kañ nga koy kañ أنا كلان قاس بأنه يعني إن هذا الفتى يصون رغيثا إن هذا الفتى يصون رغيفا ما إليه من ناظر من سبيلي في جراب في جوف تابوت موسى والمفاتيح عند ميكائيل أنا على mburu la am mburu waaye denc na ko mooy dafa mel ni mburu mi daf koo dugal ci saak jël saak bi dugal ko ci taabutu muusa bi alquran di tudd ba pare tëj ko nag caabi yi ñu dénk ko Mikaayil mooy loolu kenn du ci gaaw a yegg wax nañ lu bari daaw ci nay ci suñ dar si bëgguñ see delluwaat di yooyu yëpp waaye tabe daal jikko buñ sant la ku ko yàlla xéewalee même boo nekkut am boo mayut ñëpp tamit am na ñoo xam ne dañ la tagg ngir dégg biñ ko dégg rek nay tamit jikko bu jikko buñ buñ ŋàññi def ba siiwee ko tamit ñëpp a koy ŋàññi te benn borom xam-xam nee na mu ne nay daal mu ne mu ne mu nay daal ci ñàkk óolu borom bi rek la bokk yàlla nañ ci musal من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان وتهم متكين من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه والمال للإنسان فتان قام على تبع على البديماء نيبوكو يديكال جارو مي اوكن على البي موي اوتي ناخ نيت ني نيو بوكو تابي ام لا اروني اروني بخيلا taala umran bi buxlihi wa haatu kariman maata min shiddati albadli wan ma kenn rek koo xam ne dafa gudd fan ngir ne nay dafa nay ba gudd fan waaye diw maye na ba dee tamit mu ne kenn gisu ko ku am alal pare koo bokk ak nit ñi dana gis ku nekk te alal bo mun na laa indil ay xarit nii mun na laa xañ ay xarit kenn ci waxkat yi moo wax ne إن قل مالي فلا خل يصاحبني إن زاد مالي فكل الناس خلاني كم من خليل لأجل المال كم من كم من صديق كم من عدو لأجل المال صاحبني وكم من صديق لفقد المال عاداني من ne على النيوي alal بين amul بوخنا بريتنا بور xam ñu bari gis nañ darsu yu mel am gis ñëpp ñàkk gisatuñ kenn mu ne sama sama alal bu yokkee nag ñëpp def ma xarit bu dee Sénégal moom maire bu la gis sama doom rek papa bu la gis sama doom sama càmmiñ sama nangam moom mbokk ñëpp ngay mujj doon waaye boo ñàkkee yaa ak sa mbokk yi rek ngay dese ak nit ñu am kóllëre mu ne bëri na koo xam ne sama noonu la woon démb ma xëy am alal mu fàtte noonoo bi waaye bëri na koo xam ne sama xarit la woon démb alal bi nekkatu fi mu bàyyi ma moo tax man jaada bin maali maala naasu qaatibatan ilayhi moom lay waajo waxoon ne aral xulu raaytu nnaasa qad maalu ñëpp àndandoor jeng jëm ci ko am alal ku amul alal nag nit ñëpp jeng woon ko gannaaw moo tax euh, li waajo waxoon ne ku nekk ci aw askan amoo xam-xam amoo alal loo dugg yaa ci dugal sa bopp waaye nit ñi génne leen ci seen programme yëpp ñu la yëgalee ngeen de sax bëri na wal maalu lil insaani fattaanu mu ne alal nag mbir la moo xamante ne yàlla da ciy jaar pour examen doomi aadama bi xam nga fitna dana firi fitna bu ñu xam ñun olof di ko wax fitna dana firi xay dana firi nattu dana firi nattu ixtibaar comme imtihaan ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين يعلمون ناتو نانيو بري بور خول اختبار لين كوم ني نيم كو ديفاي وني جيتو ني خام نيغا خام ني لي ني اوتي دغ لا سي نيوم ولا لي ني اوتي نار لا بر نيو خام ني مون نلا مون ني لا واخ جو نيه فك ني لي جفتي واغول مو تانغا گم لين واي بو نغا خام ني دون دار motax ku meuna tan def ju beuri te baye wax ji mo gan mo gan wal malu lil من سلم الناس يسلم من غوائلهم الكلام فن وعاش وهو قرير العين جذلان من نيني كو جاموك نيوم موتي سين هاي بوب موم يوم بول foog ñu dut ci baaraam am na ku jàmmoog ñoom looru ci kenn nii ci làmmiñam nii ci jëfam nii ci dara te nit ñi heure bu ñu jugee rek di ko lor yonent bi sallallahu alayhi wax na ne jullit al muslimu man salima al muslimuna min lisaanihi wa yadihi jullit daal bu baax mooy koo xam ne làmmiñam loru ci kenn ndax bal yi làmmiñ di génnee mën na mën naa def lu nekk ci xol moo tax nga gis yàlla heure nekk muy defal yenentu bi walaa yaxzunanka qawluhum fasbir ala ma yaquluun ma ne gars yi ñu ngi wax yu diis waaye ba mu demee ba am ku mel ne Hassan ibn Sabit mu koy fayul utal ko mimbar sax mu ciy taxaw di yëjji yéefér yi ko yii nii mooy yi génnee sa bi nii nga koy wax ci ay woy jëmale ko ci Quraysh di leen yéeji moo gën a tar ci ñoom sax guntu xi ndax arab xam nañu wax li muy jëriñ ndax benn wax mun naa yëkkati giir lëmb benn wax wacce giir lëmb ku liir bani Abdul Maddan ci eh, shoral jaahili li leen xase xasee woon eh, eh, ñoo xam ne ñu ñu yàlla mayoon ay ay jëmmu lañ ngir seen doom yi am jëmmu ndax comme ñii ci guerre rek lañ nekk dañuy soxla borom doole xasan xas leen benn xas boo xamante ne dañoo rusa wax sax ne ci lañ bokk mu ne laa basa bil qawmi min tuulin laa basa bil qawmi min tuulin wa min xaw ma naka jismul bi xaali wa axlaamul asafiri mu ne banu abdul madan waaw seen njoolaay bi min juulin wa min min tuulin wa min daxamin réyaay ak njoolaay bi leen yàlla boole bu mu la jaaxal jëmmu ji jëmmu mberkeela la xeli xeli picc bëggatuñ dara ci seen bopp nga xam ne way way dafa garaaw ba nu am fi naaqati nekk na xaste ci giir ba xutay a xas leen ne leen qawmun humul anfu wal adnaabu xayra tagg leen ne qawmun humul anfu wal adnaabu xayrahumu fa man yusawi bi am fi naaqati danaba mu mujj nekk tagg ba nit ñi dafa utaat jabar kon ñoom wax dafa amoon dafa amoon lu muy def ci ñoom moo tax yenentu bi ba mu amee xasaan mu koy fayul daf ne ko yii nii moo gën a tar ci xurey si sax guntux yi nga xamante ne ñu ngi leen koy jam ngir mu tontu leen ci la lañ doon wax man salama naas yeslam min gawailihim comme nit ñi may leen jàmm du tax ñu may la jàmm moo tax yenentu bi ne jullit bu baax daal mooy koo xam ne nit ñi mucc nañ ci làmmiñam ba loru leen ci ci wax waaye mucc nañ ci loxoom ba loru leen ci it waaye safaan bi mooy baax mooy nga jëriñ leen ci sa làmmiñ jëriñ leen ci sa loxo li fekk yaa koy mën nit ñi mën nga leen a may jàmm waaye ñoom ñi lank ne duñ la may jàmm daaw darsi bi wax ci laamiyat ibn laamiyat ibn alwardi mu ne laysa yaxlu almaru min diddin walaw xaawala al uzlata fi rasi jabal mu ne nit munta ñàkk noonu boo fi newoon dëkk bi ne nii nga ne dëkk bi ñukk dem fële ci montagne bi dëkk fa yow kese ngir beru nit ñi boo moytuñ xay xool leen dof bi moom foo jaar rek dañ la amal luñ la wax kon yàlla muccut seen làmmiñ yi yow bul ko jéem a ut ne man saalama annaasa yaslam min gawailihim wa aasha wa huwa ayni jadlaanu dana dana dund ci mbégteeg xol bu sedd loolu xanaa ci àllaaxira rek la ko nit war a xaar bi boo mayee nit ñi jàmm tamit may leen jàmm ngir ne yow bul bàyyi sa rek waaye bul ci xaar ne ñoom dañ la ci may dañ la may jàmm man kaana lil aqli man kaana lil aqli sultaanun alayhi gada wa ma ala nafsihi lil xirsi sultaanu li mu bëgg a wax ci bayti bi mooy ku yàlla may xel mu sell xel moo xam ne sharia moo ko nàmm xel moom bu la jiitalee xër du la moom ci tënk ku am xel mu sell xel mu dégg yàlla xel mu sharia namm lum la jiital rek boo ko defee dafay baax ndax xel mu sell moo dajee ak jàngale yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam waaye xel kese mën naa rafetal lu ñaaw te fekk na xel mu rafet la mën naa ñaawal lu rafet te fekk na xel mu rafet la fekk na leer moo fa nekkut leeru xam-xam leeru nubuwa moo fa nekkut waaye ku yàlla may xel mu rafet xel moo xam ne sharia moo ko namm xel moom jëf jum la jiital rek war nga am fit dem ci ndax jëf ju rafet lay doon man kaana lilaaqati sultaanu alayhi gada wa ma ala nafsihi dem ba nga xam ne xër biñ doon waxee waxtaanee keroog ne baaxut yeji nañ ko xas nañ ko dana dem ba nga xam ne du nekk ci yow nga déggee ci ne yàlla may la alal mënoo cee maye dara mënoo cee dundale ci yàlla te bés dana ñëw nga réccu loolu lépp dafa fekk ne da ngaa ànd ak xel moo xamante ne rafetul xel moom xiir la ci xër ba nga xamante ne mënatoo joxe dara waaye bu dee xër bi xel mi dafa rafet dana la wëttandikuloo xër ba nga xam ne alal bi da nga xam lu ci sa àq ak lu ci àq jaamu yàlla yi nga matal ko ni mu waree moo tax man kaana lil aqli sultaanun alayhi gada wa ma ala nafsihi للحرص سلطانه من مد طرفا من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوى أغضى عن الحق يوما وهو خزي فتال لفم أي بتم انجير ترق جمتي بان بكاني بس دنا نيو مدمو يدق da fekk ne mi ngi ànd ak gàcc gis nga bànneexu bakkan yi waruwaay la boo xamante ne ku yàlla nattu ba nga war ko da nga sànku bakkan nag neexut ta régler ndax moom mbiram yi bët bu set la heure bu nekk dafay bëgg a yàlla yàlla lu sa kaw bo nii boo ko bàyyee ba mu màmm nag do ci jëlé ben yiw bu sayri sax daf ko ñëro lek xale buy nàmp bo xamné li fek feral luñ ko rek du nango fer amna ño xamné bu ñuy def dara nga ne xaram xaaral ma bàyyi mun na dana am xel bàyyi non lañ ci continuer rek xamuñ jeex na xamuñ fi lay am bakkan non la mel xamul jeex na xamul fi lay am wa nafsuka tifli إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصمي أو يصم وراعها وهي في الأعمال وإن هي استحلت المرعى كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم من بكن مدفع مني لير بنداو بينامبو بوكو نينا ليه dafay màgg ci bëgg nàmp boo ko feralee nag mu door a fer kon nag bul ko bàyyi mu topp ba neexu bakkan yi te bul bul ko bàyyi mu jiital yit ab dof kenn du ko jiital olof ñu ne dof ku ko bàyyil xew rek ko yaa moom xew mu yàqu ko mel ni dof bu nekkoon kër ga rek gars yi xëy am ngente ñu yëgal ko ñu ne dañuy dem ci ngente de mu ne bu demee day rey liir bi gars yi ko dañ koy bàyyi ci kër gi kon mu ne buñ ko bàyyi ci kër gi mu taal kër gi lay wa kër gi dajalo nak di ut pexé ku nek di xalaat mu ne hay yeen yeen dafa dof ngeen ma tak ci dig garab bi ngeen dem sen yoon <laughs> ko de xam nga dara dalu bakkan it boko ko dafa dafay rek foko foko foo dugal rek mu neex ak mom rek xamal ne fofu du barab bi génnee ko ndax bari na lum lay rafetalal te fekk na lol sa sa sa hay rek mo ci nek moo tax bàyyi di wax ne wa axbathu ma fiha la amriya xirsuha ala hadi dunya daniyati shumuha ala hadihi dunya daniyati shumuha وربي يقول مكائدها لا تنتهي لجدل من مكائدها لا تنتهي وخداعها يحسن أفعال القبيحة حكمها وأخبث ما فيها لعمري حرصها على هذه الدنيا الدنيا شؤمها mu ne ay pexe bakkan du jeex bu tegee bii tey sottiwut suba mu tegal la beneen feeñu waaye moom xam naa lu ko ëppale bakkan bëriwul ay pexeem du jeex ay woram tamit du jeex te bokk na ci waraam wor bakkan di wor mooy rafetal la la ñaaw ci say jëf mu ne lu gën a bon ñaaw ci bakkan nag mooy xir bim xir ci àddina adina bu doyadi bi motax il faut nit jema a régler bopam pour meuna teggu ci yoon waye luddul dul rek banexu bakkan yi sànq yàlla waxna ab yonantu muneko ya ko yaa daawudu inna jaalnaaka xalifatan fi l ardi faxkum bayna annaasi bilxaq wala tattabi il hawa fa yudillaka an sabilillah def nañ la ngay xalifa ci kaw suuf yàlla may ko nguur may ko nubuwa mu ne atteel dëgg kuy atte dëgg mooy kuy attee ci lu yàlla wàccee ku ko defu perte bul topp sa bànneexu bakkan boo ko toppee rek nga nga nga dem ci ñàll gi da nga bàyyi yoon yàlla moo tax mu ne wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an il fa inna al hiya al ku xalaat taxawaay boobu mu war a taxaw ci kanamu boromam xam ne xisaab mënta ñàkk li waa man tadakkara al xisaaba xaafa al azaaba fàttaliku ne xisaab dana am ba ragal mbugal yàlla taxawaay boobu ku ko xalaat ba ragal ko ba tere bakkan bi wala top ay bànneexam kooku benn dëkkuwaay rek la am mooy aljana qad aflaha man zakkaaha ku yegg ci sellal bakkan bi jaar ci yoon bi Mawlana Cheikh Ibrahim teg ba nga xam ne mu ne am naa fi ay ndaw yoo xam ne ay xale yu ndaw lañ fàtte nañ sax bànneexu bakkan yi mu ne am na ci sax ñi ci yegg ci xaal boo xam ne ba seen jabar yi sax forcé moo leen fa yóbbu ñooñ fàtte nañ bànneexu bakkan de muxtaar li mu ko waxoon alasta alladi taatu daanin qutuufuha ladayhi kama tan al maasi al manakiru bàyyi yow dëgg-dëgg yaay ki nga xam ne jege la rek dafay jegeel nit ki def lu baax waaye jege la rek dafay tax nit ki sori def lu bon sëriñ bu mat sëriñ noonu la mel sëriñ bu mat sëriñ boo ko jegee xaalam daf lay maas ba nga xam ne ci yàlla rek ngay nekk te daf lay maas ba nga xam ne lépp loo xamante ni njuuj njaaj la rek da koy sori moo tax moom ci boppam wax na mu ne jëf yu baax yi jege baay moo commune lo منافع المسلمين عهدتها في مدينة إذ كنت آوي إليها في ماضيات السنين وأحضر الدرس فيها والوعظ حينا فحينا فكاد يفتح فيها علي فتحا مبينا من اللب لي جرين أب جلد من مدينة باي لا كوميني jamono yi ma faraan dem ci at yu wéy di fa teew ay dars di fa teew ay ay waaraate yenn saay من خاو تور صح ما أم أبيه كشي الله أبيه كوبيت غير جاكي بما وان باي أنا يا فعل باي كن ونهى النفس عن الهوى إن الجنة هي المأوى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسا من دساها بن بيت له ها أغضى على الحق يوم هو خزيانه من عاشر الناس من عاشر الناس لاقى منهم نصبا أمولينكم لأن سوسهم بغي وعدوان ومن يفتش عن الإخوان يقلهم فجل إخوان هذا العصر خوان يعني بيت عموجد من استشار صروف الدهر قام له على حقيقة طبع الدهر برهان أمنكم من عاشر الناس موجتوب ولا من رواية ببلاقهم man aachara annaasa laaqaa minhumu nasaban li anna suusahumu baxyun wa udwaan mu ne man aachara annaasa ku jaxasoo ak nit ñi ñenn ci nit ñi nga xamante ne amuñ xel xelu lislaam bu leer amuñ xel bu ànd ak bu tëbboo ci xaqiqal muhammadiya amuñ seriñ bu mel ni baay laaqaa minhumu nasaban coono rek ngay jëlee ci dajo ci jaxasoo ak ñoom ndax lan mu ne li anna suusahumu ndax nit ñi seen doxalin seen seen bindare li anna suusahumu seen seen bindare baxyun mooy beew wa udwaanu ak tooñ baxyun wa udwaanu hmm. mutanabbi wax na ne xaw ma nu mu ko ne nit daal boo fekkee duy tooñ rek koo fekk nit nit koo xamante ne duy tooñ daa fekk ne dafa lotto rek wa zulmu <laughs> wa zulmu min chiami nufuusi fa in tajid daifatin fa li illatin laa yazlimu mu ne tooñ dafa bokk ci jikko bakkan yi ne boo gisee ku fekk boppam ba duy tooñ am na lu am na lu nekk foofu mun naa am dafa am sëriñ bu ko yar bu baax ba mun a tudd tooñ rek waaye mu ne muñ ak tooñ ak nit ñoo ànd wa zulmu min shay'in min nufusi moo tax mu ne man aachara annaasa laaqa minhumu nasaban nit ñi dangay gis euh, borom xam-xam yi dañuy sonn ci wax mbiri jaxasoog nit ñi ndax dañoo xam lu ciy jugee am na ci ñoo xam ne seen xam-xam yóbbu na leen ba mënatuñoo toog ak nit beru fële ndax li ñuy jëlee ci jaxasoog nit ñi waaye ñi leen gën a mat mooy ñi nga xam ne mën nañoo jaxasoog nit ñi te duñ ci laale mooy li bàyyi wax ci aarif jël ci lu nekk te dara mënut a jël ci yow ku ku ku ku ku ku sa sëriñ pare ci yow sëriñ bu mat bu pare ci yow fu la neex demal ñu la neex toogal ak ñoom boo leen soppiwul duñ la soppi waaye kuñ pareegul ci yow foo dem rek dégg loo xamutoon rek complexe yu bàyyi la ci kon du ku nekk moo war a jaxasoog ñëpp du ku nekk tamit lañu war a joyal mu dem dox fu ko neex am na ñoo xam ne buñ toogee benn nit benn 24 heures mu soppi am na ñoo xam ne benn téere bu buñ ko liiree rek mu soppi leen ñi bokk ak borom téere boobu gëm-gëm suba ñu commencé wax ay waxam ñooñu ñooñu nekk fii ñooñu fi nekk ci wax yi yu bëri yoo xamante ne ñuy wax ci suuf yaa benn waay lañ topp boo xamante ne xamuñ sax waa ji fu mu jógee mu ne nit ñi ku ñoom jëlee ci coono moo tax sufiyanke yi dañ lay jàngal noo noo noo noo nooy nekkee ak nit bàyyi indi na waxi eh, Seydina Ibrahima indi na ko ci Kaashiful Albaas nit ku xelu daal war ngaa xaaj say heure heure booy nekkal yàlla heure booy dem ci sa morom yi ñi xam pour ñu wax la ay bi nekk ci yow ak heure bi nga xamante ne da ngay toog di xisaab sa bopp li nga def nit ku xelu war ngaa xam heure bi ngay wax heure bu ngay noppi fu ngay waxee fu ngay noppee ñi ngay jaxasoog ngir régler sa bopp rek ngir régler sa bopp rawatina nit ñoo xamante ne ñu xam ñu ngi ci biir ñu xamul ñu ngi ci ñu ngi ci biir ñu doyadi ñu lu nekk ñu ngi ci biir loolu boo fay dugg dafa am noo fay duggee Allahu Seydi dafay wax ne عاشر النذل بالكلام القليل والقه بالترحيب والتبجيل وصون العهد عنه والسر حتى لا يرى للخلاط أي سبيل فخلاط الدني ويلك سم يسرق الطبع في زهاء مقيل nit ku doye di nit ñu doye di ñi boo buggee dund ak ñoom na nekkee ci wax ju néew bul bëreeg moom wax na xam nit ñi buñ minee sa wax rek yeb boo dajeeg moom tamit na nga ko tatagal mu romb nga romb Aïcha Sayyidatna Aïcha nit dafay ñëw ci Yonent bi wax ci moom ay wax mu yegg si Yonent bi reyal ko mu ne ko ah kii li nga wax ci moom nga reyal ko mu ne ko ah inna la nabashu fi wujuhi qawmin wa qulubuna tal'anuhum da ñuy fekk nit ñu ñu ñu ubbil ko suñ kanam di ko réyal sax te fekk ne suñ xol ngi koy rëbb mu ne ku ku doyee di noonu bul seq ak moom wax ju bëri rek mbóot boo am dencal ko sa bopp bul ko ko jox te wëttandikul jaxasoog moom jaxasoo bu bari ndax ku doyee di mu ne jaxasoog moom poson la boo xamante ne tuuti waxtu rek ab saa rek mu soppi la ndax jikko yi dañuy sàccante Oustaz Barham Diop day wax ci benn waxam mu ne benn waaye moo ko wax ne ko man bu ma toogaan fu nit di tux sama bopp bi dafay metti ma dëkk ak tux kan mujj nekk di tux moo tax wala tasxab axaa jahlin fa iyaaka wa iyaahu fa kam min jahilin arda xaliman xiina axaahu bul ànd ak kuréer wattandiku ko daw ko sax ndax bari na ku réer koo xamante ni ku xamoon ànd moom bu mu yóbbaale ko ci réer bi ndax laa tasxabil kaslaana fi xaalaati kam saalihin bi fasaadi axara yafsudu ku tayal boo ànd moom mu yàq la bëri na ku yàqu bari na na ku baaxoon ànd ku yàqu moo ko yàq ndax àndandoor nit ñi moom loolu moom nit ñi jaru sax koy jàngal ba bu seet ngi gis jeexital ànd àndandoor gis nañ fi ku mujj baax lool ngir ànd ak ñu baax waaye gis nañ fi ku mujj bon lool te baaxoon ngir ànd ak ñu bon ndax bu ñuy def sa kanam mbir mi mu bon nga gis ne eh, ci zahir nii dara fekku leen ci da ngay jàpp ne dara nekku ci bu baax nga dugg ci nit daal boo nekkeek moom bu ngeen dëppooyee ànd leen bu ngeen dem mais ba mënatu leen dëppoo ngeen tàqalikoo tàqalikoo bu rafet tabul ci wax dara benn waaye mooy dafa bàyyanteeg ku mu doon ànd ak nit ñi xamee ko ko mun naa wa qaa'ilin kayfa tafaaraqtuma qultu qawlan fihi sawaabu lam yakun min sha'ni fa faaraqtuhu mu ne ah diw moom da ngeen doon ànd da ngeen def ba tàqale ko ah mu ne ma wax ci wax ju rafet dañoo bokkut dañoo bokkut jubluwaay yi bokkutul rek ku nekk dem sa dox koro doon ànd ak démb même bu yalla doxale ngeen dem ba ko war ngeena am war nga am gorek boo xamante ne doo waxati ci mom lu ñaw comme ni borom xam-xam defé won ak jabar ji ak jabar ji ni ñi ñew laaj ko do ah, jotté ak so sona si mu ne sama waxi jabar duma ko wax ken sey bi tass ni ñi laaj ko ah comme fi mu ne sëy bi tass na mom nu mbir mi demee mané ko légui jigen jambour la ntuma ci wax ko xam nga ne la amna na xane buñu tek bu ñu joteeg seen soxna yi ci mbéd bi di ko wax bu sëy bi tassé nak ci lay gëna graw sax ku nekk waxal moromum lo xamantene yow sa boobu boo toogee xalaat dag naan li bu nekkon deug seen ànd bi du yag ma sha allah salama ta wal aafiya man achara an-nas motax imam shafi waxna ci xasida moy mu waxne ku bëgg a mucc noy noy noy dundé moy da chita an taxya salima min al adha ci mujjantama bi da nga dégg mu naan fa aachir bi maarufin wa saamix man ictada wa faariq walakin billati hiya ahsan li fekk yaa ngi mun a dund ak nit ki na tegu ci rafetal bu la nit tooñee nga jéggal ko ndax wax nañ ko démb inna min makarim al axlaaqi an taafua an man zalamak mu lay woykat bi di wax xanaa borom ma xaama moo koy wax saamix axaaka ida xalat منه الإصابة بالغلط أقن الوفاء ولو أخل بما اشترط وما اشترط واعلم بأنك إن رمت مهذبا رمت الشطط من ذا الذي ما ساء ما ساء قط ومن له الحسنى فقط كان يوكش محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط بني التوني تمنا مسلا توني صح tooñ sax ولا la wala moo ko tey كورك بودي nit ku mat sëkk nga soxla yaa ngi sàkku lu sori ndax nit ñi ñu jaxasoog ñoom ñëpp yàgg ci jaxasoog ñoom te fekk ne da ngaa xamoon jaxasoog ñoom wala fekkee ne da ngaa amoon yaa ngi ci xam yoo xamante ne koo ko nettali du jaxasooto ak nit ñi ndax da gis façon bu nekk Sukayri Cheikh Sukayri dafay wax bàyyi ci benn xasidaam naan kan nit ñi dama leen essayé njëkk yow dama leen essayé njëkk yow pour mu xamal ko nit ñi nuñ baado la mu ne ko ñemee nañu tok sa ron ker sax nan ker gi moom mu ne ko la yahum annaka alladhina da'buhum an yakfuru niaman fi dilliha qaadu warfuq bi nafsika laa tabsut yadayka lahum min fawqi taaqati jahdin fihi qad fihi qad fihi qad xama naka law anta anfaqta ma fi l ardi baynahum lam yarda anka bihi man laa tabsut yadayka lahum min fawqi taqati jahdin fihi qad zahidu mu ne ko bul bul faale ñenn nga xamante ne seen aada mooy ñi weddi xéewal yoo xamante ne ñi ngi ci biir xéewal yi man nit nettali na man leen dafa am ñum dajale yóbbu leen aj aj gi jeexagul benn waaye mu ne bu ñu delloo ba kenn diwoo ma yóbbu aj rek ma jaar fu ñaaw yow génn goo màkka sax nga ne weddi na kii moo la yóbbu nga aji mune bo dajale won alal adina lépp may ko ku la xiñaanee tamit lu tax xiñaan bi mum du deñ mu ko man dama essayé nit ñi ñëk yow dama leena xam mu ko jarabtu qablaka ikhwana zamani fa lam ajid axan fi l ixa alayhi atamidu وما رأيت سوى من صار منتفعا مني وإلا علي صار ينتقد ومن أعاجيب إخوان الزمان أرى من استفادوا جدا علي قد وجدوا أمدهم بالذي عندي لغير مدى وهم يقولون منهم جاءني المدد فيظهرون لغيري أنني بهم قد انتفعت وهم للنفع قد رصدوا بشبير من كان فاسأل إلهك أن يقيك شرهم فشرهم قلما نجا منه أحد منكو آه إسنا نيني بلا mbokk yi essayé naa leen bu baax mbokk yi rawatina gisuma ci koo xamante ne doy na ma mbokkoo ma weeru ci moom li ma ci gis daal moo ko koo xam ne pare na pour jariñoo ci man bu munta jëriñu ci man mu di ma yeeji di ma saaga mooy li ci gën a garaaw nag ci mbokk jamono ji ñi ma gën a jëriñ ñoo ma gën a bañ di ma saaga lépp lu ma am yulli naa ko jox leen waaye ñom dañuy albertay hay sawaji ñokay dimbale di sawaji kay sawaji kay buñ ne sawaji rek pare la waju ñaw waaye bo buggee jëriñu wax yoy yëpp sànni ko sa gannaaw nga dox sa dox ku ñak fayda rek la ay wax di di baylo wala di deflo def qaadi Iyaad nee na al amalu li ajli nnaasi shirkun wa tarku al amali wa tarku al amali li ajli nnaasi kufrun mu ne jëf ngir nit ñi loolu bokkaale yàlla la bàyyi ngir nit ñi tamit mu ne loolu moom weddi yàlla la ah ko jàmm mooy lan mu ne jàmm mooy yàlla musal la si ñaar yëpp mu ne lu mu am jox naa leen ko ñoom ñu ëlbatiku ne ñoo ma jox di wan nit ñi nag ne njëriñ bi mu am ci ñoom la jógee ba ci biir xasida bu gudd la mu naan leen daal laay wax fasal ilahaka an yaqiika charrahum xay daal bépp xay bu mun a jugee ci ñoom ñaanal yàlla yàlla musal la ci waaye maa ngi lay xamal nag fa charruhum xallama naja minhu ahadu seen xay moom néew na ku ci mucc yal nañ yàlla muccal boobu moo tax man aachara annaasa laaqa minhumu nasaban ku jaxasoog nit ñi dana ci jëlee coono dana ci dana ci jëlee coono li anna ba baxyun wa udwaanu nit ñi loolu mooy seen bindere am na ci ñoo xam ne sax danga ngay nekk ak ñoom ñi gëmal la ne bu mbir yi sottee sa bu seen mbir sottee sa mbir sotti nga nga sonn ci ci sa façon seen mbir yi sotti ñu fàtte la moo tax ku yaakaar yaakaaral de bëri na ku mun taxaw ne la buma amé nangam man ak yow ñokoy bok dafa accès gor rek xaliss bu ñuy programme da fay nek gor rek waye mom bu accès programme bo xam lay indi ta amna na shaa'ir bu waxoon ne alayka bil ya'si min annaasi inna al-ghinaa wayhaka fi yaasi kam saaxib كم صاحب قد كان لي وامقا اذ كان في حالات افلاس اقول لو قد نال هذا الغنى اقعدني حبا الى على الراس حتى إذا صار إلى ما اشتهى وعده الناس من الناس قطع بالقنطير حبل الصفا مني ولما يرضى بالفاس من نيني مام خادل شي نيوم رك من كوم دغ من شي خادل شي نيني من برينا سما خالد بو خاني ما بوغون لول بوغ بو جيغ ديو جامونو بيم نياكي وامي بنين بنين خار كانام لا اندي mu ne ba sax daan naa wax ne kii moom bis bu amee moom ci kaw boppam bi la may teg mooy ne man jaratul may uti sax waaye mu demee ba ba ba am ba nit ñi boole ko ci seen bopp mooy ne nit ñi duñ boole seen bopp ku ñàkk mu ne ay ay ay sax doy ko lu gën a mun a dagg sémiñ la ut pour suñ diggante jeex asalullah salaamata wal aafiya man aachara annaasa لاقى منهم نصبا لأن سوسهم بغي وعدوان ومن يفتش عن الإخوان يقلهم فجل إخوان هذا العصر خوان من ومن يفتش عن الإخوان يقلهم من مبوكي أجنن تي façon بانا خامني بوي ne booy luñati seen mbir pour xam lépp dañ ngay mujj bañ kon jàmm mooy li li li li ñu waxoon ci xikma bu bu bu si waxoon ida xadamta almuluka falbas min altawaqi azama albas wadxul ida ma daxalta amma waxruj ida ma xarajta axras dégguma ma waxuma ku bëgg a nekk ci jàmm noonu ngay dundee waaye boo wanee ne mën ngaa dégg lépp ngaa gis lépp billaay doo dese ak kenn mu ne ku leen lu ñër si mu mujj leen bañ benn shaay dafay wax وزهدني في الناس معرفتي بهم وطول اختباري صاحبا بعد صاحبي من لوتاخ مو دموي نيني موي خام بيم لين خام اك ياغ ناتو بوم لين ياغ ناتو ياغ ناتو نيني با خام لين ني مام سيرين باي مودون واخني نيني خام لين اور ريري لين مو دوغ دوغ سافرا سا مو گن xam leen wóorul réeree leen dee dugg safara moo ko gën mu ne walam turini l ayaamu xillan tasurruni mabaadihi illa saani fi l awaaqibi jamono wana ko xarit boo xam ne seen tàmbali maa neex na ko lu jut mujjante maa rek indil na ko ay jafe-jafe yoo xamante ne eh, naqadi na ko ci mujjante maa bi mu ne wa in qultu arjuhu li dafci mulimmatin min addahri alqaahu ixda almasaa'ibi ma ne yenn saa yi ma ne ma ne daal xarit bii sax mun naa moom mooy nekk ki nga xamante ne bis mu amee jafe-jafe moom mooy dimbale mais boobaa nag laay gis ne moom sax nekk si jafe-jafe yi la boobu wa in qultu arjuhu li dafi mulimmatin min addahri illa kaana ixda almasaayibi yal nañu yàlla xiir ci boppam te dimbale ñu boppam imaam Shaafi'i nee na wala xayra fi xillin yaxuunu xalilahu wa yalqaahu min baadi almawaddati biljafa mu ne xarit boo xamante ne dafay wor xaritam dajeeg moom gannaaw mbëggeel feeñal ko mbañal ak tàqali ko mu ne kooku yiw nekkul ci moom lu ci topp den bayti laa doon wax وهذا سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد بو ديمي باغا خامني اماتو خريط بو مانا دغو اندك ياو سي دغو الال ماي ادينا جام رك خامني نون جام نيك امنا كو خامني موم نينا موم بام غيسي ني لما رايت بني الزمان وما بهم صديق وفي للشدائد الصفي ايقنت ان المستحيل ثلاثه alxuulu wal anqaau wal xillul wafi ñoom jàngatee niti jamono gis ne xarit bu sàmm kóllëre nekku ci ci la ci la ko door a óor yi ñuy dégg te amut mooy njuuma ak bu gaay di wax ninki nanka ak xarit bu wóor xarit waye lolou du lépp dañuy wax ci lu gëna bari lu ñuy gis rek waye ñu bax ñi ñu fi ba yalla yal yàlla boole nit ñu bax ñi te boole ñu ci ñu bax ñi boo bëggee nekk nit ñi ci jàmm daal xamal ne ku matee côté yëpp amut côté yi matee nga xam ko na la may nga muñee côté yi nga xamante ne mateewoo ko te nga xam ko ومن يفتش عن الإخوان يقلهم فجل إخوان هذا العصر خوان اللهم صل على سيدنا محمد وسلم